Seex Mustafa santal dayob cante yaa fi gën amul ku lay te ka ngaayoo ci Mustafa yow yaa di ab sang ab sang dis gor xam teraanga te xër Seex Mbàkke Seex Mustafa seen naal yaa ngi yaayaatu yaa yaa noppi yaa yaa noppi yaa bari yaa yaatu yaa mën a muñ yaa noppi yaa bari jom bari jom Euh, jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur yu Wilaya TV comme ni ngeen ko gisee rek ñu ngi fii ci jumaay Touba waaye it euh, di dundal bis bi nga xam ne it moom la Cheikhul Khadim ñibbisi woon ci dëkkam bi di Touba dëkkale ji ak boromam waaye it euh, ñu ànd ak ñi nga xam ne ñooy turandoo Serigne Mbacké Soxna yi ñuy amal ay bernde yu am am solo jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy murit yi nga xam ne ñoo nekk fii ci jumaa ji di dundal bis bi ci ñeenti sàll yi nga xam ne Serigne bi digle woon ñu koy jàng saa su màggal gi ñëwee muy jës bu mu muqaddimaat ak mim ya waaye it ak alquranul karim ngir uh, yéene yool bi seexuna Cheikh Ahmadul Xadim kon su ko defee rek ngeen topp ñu ñu dem ci jëwriñ yooyu dëkk ci kenn sunu micro bu ko defee mu wax jubluwaayu bis bi ak lan na jublu ci li nga xam ne mooy bernde yi. ñu ngi leen di nuyu bu baax mbokki Wilaya TV mel ni yéen ñu fekk fii ci barab bu tedd bii di jumaay Touba uh, ñu defar ay bernde yoo xamante ne nii nag uh, yàgg nañu ko taxawee di ko indi fii ci barab bi rawatina ñi jàng kaamil yi bernde yi nag ni ñu koy defee mooy. bu ñu xëyee euh, dana am lu fi njëkk a mu jëm ci café ak meew ngir ñi wàccee kaamil yi waaye bu ñu toogee bu boori 11h it mooy lii ñu indi muy xewal yi ay ndékki la muy ay ginaar ak yeneen xeeti ñam yoo xamante ne nii euh, ci ñoom la jëm xëy na ci suba gi it lu toll ci ñeen fukki booli ak juróom yoo xam ne moom lañ programme muy wàllu ndékki kon ci la ñu toll moom lañu indi nii moom ngeen àndoon ak ñun mbokk yi gisandoo nañ ko muy lu am solo ñu nit ñu teewal bu wilaya ngir renforcement ñoo xam ne liggéey bi benn la waaye it waa Ahiba il Khadim yi moom euh, amul volontaire ñoom lañ ko àndal ak organisation wilaya bi ngeen fi gis ñoo ngir taxawee ko suñu ci paree it noonu la nga ci bëccëg lépp jëm bis bi rek ak ñuy wàccee kaamil jumaay Tuubaa kon bés bi noonu lañ ko xamee maam tournée Sëñ Mahamad ñoom ñoo koy def benn yi ñu indi ci jumaa ji ñoom ñoo koy piloté ñoo koy organisé te it at mu nekk ñu ngi am la moo amul frontière kon képp liggéey bu am solo bu ñuy amal ci jumaa Tuubaa muy ci diggante ndékki añ ba ci reer noonu lañ koy am solo la kon loolu kon loolu moom yaakaar naa guroo xaar ku la ciy soññ parce que liggéey bi am na solo te it fi ñu koy defee yaakaar naa rafet nañ ci njort bu baax a baax kon loolu moom da ciy tàllal loxo ñëpp ñu ñëw teewee ko te jàpp ci nuñ ko mën a nag kàddu yu mujj yi rek mooy ñu xam ne liggéey bi moom nii rek la maanaam liggéey bi liggéey la boo xamante ne nii euh, liggéey suñu borom la liggéey bi yàlla boo xamante ne nii mënees na cee amee lu nekk te bis biit benn yoon la ci at mi te it taxawaay bii waa waa tournée Serigne Mouhamed yi ko ak walaay ak waa Ahibahil Khadim mbir la moo xamante ni ku nekk war nga cee mën a jàpp nag jàpp gi nag mooy ci sa alal ci sa xel ci sa doole ak sa temps ngir yàlla jëmi sëriñ bi te ne mënees na ñu ngi leen di sant yéen waa Wilaya TV di ñu ci man ren bu dee nañu mën lu ko rabaak sëriñ bi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu yépp rafet matale mbooleem ku lay def moroom it na tey nii bu wér yow doo moroomam te doo maasam ku jéemit tële yàlla la tane ci biiri taneef yi baax yi fi gën li tax nga gel war dib sang yaa sarale moo mën a teeru gan te xam teraanga kum yeewi nag kum yeewi gërët baam yaraanga Cheikh Moustapha santal dayop cente yaa fi gën amul ku lay werente te ka nga yoo ci